lay xëccoo ak wut fi mu toll nii ndax député yaa ngi ñëw ñu war ko xëccoo bu jàllee itam euh, xëccoo réew mi jot tànn njiit fi mu toll nag ñi xëccoo ñëpp dañu jóg wut si sëñ si sëñ si yàlla da leen a boole mbooloo ma wax ne moomuñu mbooloo ma mm-hmm. dañ leen a war a gide ci saatal ma war leen a xarit ci ak taalibe kon sëriñ si waruñoo jéem a jaay mbooloo mi ndax lu ñu leen jox mbooloo mi topp seen gannaaw tax jox ko te mbooloo mi juróom ak ñaar yi ñam ñi ngi leen ci jox ngir sëñ Tuubaa kon lañ leen jox buñ ko lekk nañ ko delloo ca mbooloo ndax ay dafa am yoo xam ni ñu ngi ciy sant nguur di ci sant ku ne te muy ay hôpital ak yoon ak sécurité loolu nguur la war fu mbooloo ne fu ne ñoo ko war def fu mbooloo daj itam ñoo ko war def kon am na yooyu jërut sant kenn ndax suñu juróom ak suñu ñaar ak suñu impôt rek moo ko def te ñoom ñooñu nag di jóg fi mu toll dañuy jóg di wut di wut sëñ si waaye nag sëñ si tam nañ xam seen bopp bu baax a baax ndax ku ñëw te jóg yow ci sam néeg sëñ buy bu leen di buy dem ci ñoom da ngaa doon ànd ak sa mbooloo dem fa lañ lay wax ñëpp dégg ko nga ko nga wutal ko seere ndax mën ngaa dugg ak ñoom fii ñu jox la fukki dërëm ñu jox nañ ko ab million te booba sëg wet a tax doo ko mën a weddi booba tuumaan nañ la bu ko defee mboole mu wër la diri biiw jàppe la warkat te fekk wuroo kenn moo tax looy def ak ñoom na ni fàng ci biti mooy sel sab der sëñ sel nag nee na ñoom dañoo ñàkk secret ndax lépp luñ la dikk bala ñu ko def dañ ko wax téeméer te bu noppee waxaat ko téeméer dañ laal na yem suñu digg ak yow bu defee sa rakka nga fee sa dooma nga fee sa talifee nga ne bukk booy gën téléphone yi diw ñëw fi bañ ko jox ko nangam ba nga daal na yi keneen ne ko di ko nangam bu bu fekkee Ndakaaru nga jóge ba la fekk ñëpp yow ku ñëw naan la ana sa wàll te lañ jox dañ koy yokku de <laughs> boo defee fekk nga sa ñooñ waxuñu ma ma dara dañ la jàpp fenkat jàppale warkat hmm? jàppale bu naa fekk te fekk moo tax xamal boo gisee suñu bàyyi yi am na jaax bu wér a wér dañoo xam seen bopp xam ne leen yàlla tollal xam ñam leen boole tan nañu jaxasoo ñoom lii koo def am jàmm waaye koo deful dëkk ci guta teyit confort bii ñu lay jox ak ligsi bi du dara alhaakumu takaasur hattaa zurtumul maqaabir moom loolu moom ba keroog ngay dugg bàmmeel moom loolu am ndax àdduna toggam doj la kenn du ñoral ña sóor démb ñu sóor barki démb ak ñu sóor tey ak ñu sóor bu ñoo kenn du ñoral toggum tey kenn du ñoral mooy daw di àdduna bi bi bi dàq nguur itam bu la ko yàlla joxee mooy joxe nguur moom leer na nañ kenn joxewut nguur ku yàlla qul allahu malikul mulk tu'til mulka man tasa wa tansihul mulka mi man su la ko joxee bu koy nangu ni bu la ko jox niñ lay bool ñu ànd ak yow foo jëm ñu topp leen nim di ren bu la ko xaj itam nit ñoo la topp lay lay lay ñoddi lañ daan wax yaa fi gën yaa liggéey ñu wax lu gën a ñaaw soo jeexalee nag dem ak jàmm am jàmm kon tàngi su boobu day tàngi su mënta saabu day ñëw soo xëccoo nag war tuddi lu mënta saabu toroxtaa nga ci topp yàlla ci yàlla mos a wasalaamaaleykum wa